jigéen di dëbbi ak loxo bëgg nañ yëpp machine lañu utiliser waaye léegi Macky moom maanaam troisième mandat nii est que xam nga ne wax na ne day def troisième mandat ba pare ndax léegi ba léegi moom fii ba 2025 bëgg nañ benn jigéen du dëbbi ak loxo maanaam moom jàpp na day continuer ba 2025. salaamaaleykum waa groupe des médias. bon ñun ay artisans lañu. waa nekk ay lawbe nekk ay artisan nekk bon depuis lors gars yi dañoo jëloon suñu photocopie d'identité yi léegi Macky Sall déclaré ne day jàppale ñi nga xamante ne mooy artisan yi bon depuis boobu ba léegi ça fait deux mois mun na ne ñu ngi toog di xaar bon affaire bi métti na suñu côté affaire bi suñu suñu liggéey doxatul xam affaire yi métti na trop trop trop franchement affaire yi métti na bant yi doxatul xam nga boo am na ci ñin ciy woo naan leen di ngeen bindu baaxu da ngeen di binduwaat ak ñu demaat binduwaat xam nga te affaire yi métti na métti na trop trop trop ci artisan yi jërë ngeen jëf ñu ngi kontaan bu baax ci seen liggéey. salaamaaleykum. jeune opposant yooyu nga xamante ne actuellement ñi avenir u dëkk bi ci seen loxo la nekk rawatina kii di Sonko ak Bougane Gueye Dany ngalla ko jéem xippiwaat seen bët yi bu baax ngeen xool. xam ni nga xamante ne ñoom ñooy jéem a dugg seen diggante kat loolu mooy seen avantage bu lay nangul loolu kon donc man loolu moo taxoon ma ne xaaral ma def benn petite vidéo bi ma envoyé ko wasalaam. Birahim. Euh, damay wax ci ñaareelu euh, intervenant bi li mu wax ci lu soxal artisan yi mhm. euh, sànq Ndeye Dime mu ngi koy wax dafa am fond buñ fi tegoon fond force Covid 19 mille milliards tagal na sax yoo xamee ni li ko taxoon a jóg mooy justement yenn secteurs yi parce que tous les secteurs am nañu jafe-jafe ñu mën a seet lu ñu ci comp jox leen ba nga xamee ni euh, situation bi ñuy dund dina xaw a tane ci ñoom wala mu tane tane bu xaw a yemamaan mais au moins ñu mën cee dund lool bu fekkee ni defuñu évaluation bi parce que ba léegi ñu ngi xaar évaluation bi ñu ngi koy xaar ci wàllu ceeb bi ñu ngi koy xaar xaar ci wàllu suukar beeg macaroni beeg yi mu àndal ñu ngi koy xaar également ci li ñu jox secteur yëpp euh, muy ci artisan ak beneen secteur bu mu mën a doon mais beneen bi tey ci artisan yi ba léegi dafa am benn loi boo xam ne dañ ko fi tëraloon ne ne bu dee 1 pour cent daañu ko jël ci mobilier national mu jëm ci état bi lu muy defaree ay lu muy euh, équiper këram li muy équiper ay bureau mag yu ni mel c'est le moment état bi nag justement gën a firndeel lool gën ko dëggal ba mën a jàppale artisans yi ak ñeneen secteurs yi nga xamee ni consommer local la war a njëkk a doon. gisatuñu kenn koo xamante ne nii ñëw na jël seen i euh, jënd seen bagage dem rek maa ngi gis benn reportage bu Mame Ndiaye def ca village artisanal bu Soumbédioune voilà mi ngi noonu kon donc tey gis nga booy li ma doon problème am na parce que jusqu'à présent ñoom nee nañ dañ leen enregistré woon ñu ne leen defaraat leen beneen liste donc mu mel ni kon affaire yi dafa dem ba finalement dafa jaxasoo te li ñuy def dafa mel ni maîtriser ko euh, xamuñu fan la jaar parce que tey ba léegi loolu day nekk problème boo xamante ne tey jii pour jàppale leen day nekk lu jafe. day nekk lu jafe ñu dem euh, taataanaat yeneen i xalaat. bi ak loxo. salaamaaleykum Sen TV ñu ngi leen di leen siyaare. comme ni ñoom niñ ko bëgg a compter noonu nag pour man. Eh, ba moytuwul Macky la dana am Sénégal cent yoo xam ne moo leen di jiite. parce que léegi bu fekkee dañu ne. sept yu njëkk yi bokkut si. mooy ne référendum bi ñu defoon. constitution bi léegi par ñaari par ñaari cinq ans la maye. bu neexee président Macky la bu ñu demee. ba ñaari cinq ans yi di bëgg a jeex mu defaat beneen référendum bu ko defee boo xam ne par par ñaari sept lay maye bu ko defee mu newaat kon cinq ans yi ma yiñ nekk nii bokkut yeneen ñaari sept dana ko amaat ci kanam muy douze ans pour man loolu sa xel warta daj sax nga ne

salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jaare yéen waa seen TV ñu ngi leen di jaare bu baax a baax ci rafetlu seen liggéey ñu ñi nga si ñoo nekk fii ci Mali ak ñu nekk Côte d'Ivoire Niger Nigeria wax dëgg yàlla dañuy ñaan président de la République mu dimbali ñu ngir yàlla ubbil ñu frontière ba euh, Mali Sénégal parce que ay boroomi njaboot lañ dañoo bëgg ñëw Sénégal te wax dëgg yàlla instant yi mun ñëw mun ñëw dugg Sénégal booy dugg Sénégal day metti lool ngir yàlla nañ ñu bàyyi xel ñu nekk si àll bi ci dimbali ñu ubbil ñu frontière ñu mën a dugg Sénégal parce que doomu Malien yi nekk Sénégal yëpp dañuy génn Sénégal dugg seenam réew amul problème mais ñun pour ñu génn fii Mali dugg Sénégal beneen affaire la ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa Sen TV ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax a baax. bon ki doon tool yi. Euh, booy nañ. tool yi booy nañ ay nag faaw ñu jéngu ko nag parce que comme yaa jiw sa gerte nag ak lu métti métti di nga fexe taxale ko am ñax loolu moom yoonu état nekk ci question de responsabilité la bu fekkee moom da ngay fay yaay génne sa poche nag fay loolu daanaka moom aajuwul jàmbat <laughs> ndax pexe amu ci bi ci des nag moo gën a ëpp solo muy euh, Sénégal yi tàggatem bi fu mel ni Mali yàgg nañu fa am na ci ñoom ay chauffeur am na ci ñoom ay commerçant ëpp ci ñoom ay père de famille lañu donc gouvernement bi. yàgg nañ ko fi wax nañ def pexe ba jàppandale leen ku bëgg a ñëw ñëw donte woon dañ lay mettre en quarantaine pendant 15 jours nga dem regagner sa famille loolu moom wareef la te nguur gi war na ci gën a bàyyi xel mais tàggatémbe fenn ndax tawat nit ñu commencé waat seen i activité partout dem ak ñëw te ba léegi ubbeegoo sa frontière say doom mën a dugg si waat loolu moom vraiment euh, problème la boo xam ne njort nañ ni xëy na nguur gi bu ko déggee dina ci jëm indi solution yaa xadi waaw justement rek parce que man li Mansour wax rek loolu laay dëggal parce que am na loo xam te ne yow yaa jël sa responsabilité bopp mais man dafa am laaj bu may sampaat est tey nguur gi jël na euh, agriculture comme priorité parce que boo xoolee budget bi ñu mujjee voté euh, nga xam ne dafa dugg ci loi de finances rectificative bi ñoo ngi wax plus de 4000 milliards te agriculture li ñu ko ci jox 141 milliards dañ ko ci jox donc mu nekk nay xadi loo xamante ne ni doo comprendre nii fan la ñu nar a jëmee ak mbay mi ci 141 milliards yooyu nga xamante ne ni tëbb nañ ko ci budget lu ëpp 4000 euh, milliards ak lu teg te wax nga ni euh, agriculture bokk na ci secteur prioritaire am na solo kon ñu dem ci Birahim Touré. waaw euh, xam nga ci lan laa bëgg wax mooy waa ji wax waxu troisième mandat troisième candidature xam nga lu ci xaw a yéeme boo mayul moom mii moo nar dem jël kartam sànnil ko Macky Sall bu jëlee bu buy lijjanti euh, troisième candidature parce que mbirum mandat candidature la malheureusement Sénégal dañoo am lenn mooy wax moom mën nañ ko débat commentaire ci wetu ataaya toog ku nekk naan nangam nangam bu ñu demee nag ci élection euh, ñi doon kaas ñoom ñooy dem voté waaw euh, rangé wu ci benn côté je pense que ci fànn yu mel noonu nag dafa am liggéey boo xamee ni société civile homme politique muy du pouvoir comme de l'opposition intellectuels yi parce que ku ci nekk yaa ngi ñëw naan non euh, constitution bi euh, nii lañ ko tëralee euh, esprit ak lettre constitution fii nag la ñuy xamee ndax réellement démocratie bi ñuy xëccoo boobu ba léegi réellement am na fi ah, am na solo kon ñu leen di jaajëfal mbokk